alors fi ma bëgg ñu taxaw fa mooy pôle parquet financier parce que ñu bëri ñu ngi koy dégg comprendre ñu ko si c'était à l'époque dañuy wax ñoom ñooy créé yi donc loolu bëggoon naa nga leeral ko ñu ñëw ci seen rôle d'abord ak fi ñu leen di xaar ci reddition des comptes. waaw xam nga pôle judiciaire et financier pôle judiciaire financier bi nga xam dañ ko teg. Mhm. en fait mooy prolongement wu CREI yi. la cour de mhm. répression sur l'enrichissement illicite. Mhm. donc pôle judiciaire bi depuis 2023 la ñu ko la ñu ko installé. alors donc avant même régime bii nii di ñëw. fekk na pôle judiciaire financier bi euh, euh, euh, tegu woon na. Mhm. mais nag kiiwaguñu woon ay magistrats yoo xamante ne dañuy dañ leen dañ leen installé pour que ñu commencé naturellement mën a jouer le pleinement leur role mhm. donc ministre de la justice le le ministre Ousmane Diagne installé na leen bi mu leen installé gis nañ ne ci composition bi. 27 mhm. 27 magistrats la. et que tey jii nii. pratiquement li ñu gis ci juridiction de droit commun yëpp am na ci c'est-à-dire am na un procureur euh, euh, euh, financier d'accord am na adjoint am na chambre d'accusation am na am na am na instruction mm-hmm. am na juridiction de jugement également li ci ëpp solo également am na double degré de juridiction am na double degré de juridiction mm-hmm. loolu aussi lu ci am importance la parce que li ñu doon ŋàññ ci CREI bi mooy loolu double degré de juridiction bi sax faisait défaut <laughs> mais également que ne la charge de la preuve incombait au au à au à à à l'accusé d'accord wala au mis en cause c'est-à-dire bu fekkee ne ci CREI bi du temps du CREI yow mi ñu tuumaal yow yaay dem andi ay preuve yu mm. wane ne yow lañ lay tuumaale taxewoo ci laalewoo ci donc dañu renverser charge de la preuve mm-hmm. te loolu noonu dafay violer fondamentalement mais les droits de la défense donc ak pôle bi nii euh, dans l'esprit il y un souci de de de de, de correction c'est-à-dire bëgg nañu corriger impair yi nga xamante ne moo taxoon observateur yu bëri taxawoon ŋàññi CREI bi y compris nous parce que waxoon nañu ne. CREI bi bien que dans l' esprit baax na parce que dafay topp ñi nga xamante ne dañuy luubal alal mais ci. anam yoon bi ñu ko bëgg a jaaralee yoon boobu noonu moo répondre woon ak les norme yi nga xamante ne nii les normes juridiques internes comme externes. effectivement parce que tey euh, dina fas yéene nañu ko présenter procureur en attendant ñu xam lan lay décider ci li nga xam ne moom mooy sorom alors fi ma bëgg ñu taxaw fa mooy pôle parquet financier. parce que ñu bëri ñu ngi koy dégg comprendre lu ñu ko si c'était à l'époque dañuy wax ñoom ñooy créer yi donc loolu bëggoon naa nga leeral ko ñu ñëw ci seen rôle d'abord ak fi ñu leen di xaar ci reddition des comptes. waaw xam nga pôle judiciaire et financier pôle judiciaire financier bi nga xam dañ ko teg. Mhm. en fait mooy prolongement wu CREI. CREI la cour de mhm. répression sur l'enrichissement illicite. Mhm. donc pôle judiciaire bi depuis deux mille vingt la ñu ko la ñu ko installé. alors donc avant même régime bii nii di ñëw. fekk na pôle judiciaire financier bi euh, euh, euh, tegu woon na. Mhm. mais nag kiiwaguñu woon ay magistrats yoo xamante ne dañuy dañ leen dañ leen installer pour que ñu commencer naturellement mën a jouer le pleinement leur rôle. Mhm. donc ministre de la justice le le ministre Ousmane Diagne installé na leen bi mu leen installé gis nañ ne ci composition bi. Mhm. vingt 27 magistrats la. et que tey jii nii. pratiquement li ñu gis ci juridiction de droit commun yëpp am na ci c'est-à-dire am na un procureur euh, euh, euh, financier d'accord am na adjoint am na chambre d'accusation am na am na am na instruction mm-hmm. am na juridiction de jugement également li ëpp solo également am na double degré de juridiction am na double degré de juridiction mm-hmm. loolu aussi lu ci am importance la parce que li ñu doon ŋàññi ci CREI bi mooy loolu double degré de juridiction bi ça faisait défaut mm-hmm. mais également que ne la charge de la preuve incombait au au à au à à à, à l'accusé d'accord wala au mis en cause c'est-à-dire bu fekkee ne ci CREI bi du temps du CREI yow mi ñu tuumaal yow yaay dem andi ay preuve yuy hmm. wane ne yow lañ lay tuumaale taxewoo ci laalewoo ci donc dañu renverser charge de la preuve hmm. te loolu noonu dafay violer fondamentalement mais les droits de la défense donc ak pôle bii nii euh, dans l'esprit il y un souci de de de de, de correction c'est-à-dire bëgg nañu corriger impair yi nga xamante ne moo taxoon observateur yu bëri taxawoon ŋàññi CREI bi y compris nous parce que waxoon nañu ne. Mhm. CREI bi bien que dans l'esprit baax na parce que dafay topp ñi nga xamante ne dañuy luubal alal mais ci. anam yoon bi ñu ko bëgg a jaaralee yoon boobu noonu moo répondre lu woon ak les normes yi nga xamante ne nii les normes juridiques internes comme externes. Mhm. alors pôle bi loolu noonu moom mooy composition am 27 magistrats ñoom ñoo ko composé am na chambre d'accusation am na chambre d'instruction. Mhm. am na juridiction de jugement am na parquet et mhm. mais li ko tax a jug dëggantaan mooy les infractions yi nga xamante nii euh, c'est pour lutter pour contre la délé délinquance financière. Mm -hmm. c'est pour lutter contre la délinquance financière. donc tey jii que ça soit détournement de deniers publics que ce soit corruption que ça soit concussion et cetera. Mm-hmm. yooyu noonu yëpp tey jii nii euh, pôle bi ñoom dañuy am compétence pour mën ko pour mën koo gérer d'autant plus que pertinence am. Euh, du ñu ko lam-lamee moment bi nga xamante ne xam nañ ne avec les nouvelles technologies de l'info les technologies de l'information et de la communication nit ñi ñu ngi def du n'importe quoi ci def ay ay euh, euh, luubal alalu alal setal ko. Hmm. en plus également sukkandiku ci technologie yi pour brouiller piste yëpp. donc loolu noonu yëpp dafa dafa concourir à que pôle bii nii pertinent. alors liñ ci mënaguñu wax nag. ne fii la ñu jëm wala fële la ñu jëm. Mhm. parce que. mais am na cinq dossiers yoo xamante ni jot nañu ko jébbal dikk. waaw mais waaw loo xam ne peut-être que ci ay probabilité ay enquête rek la parce que tey gis naa si presse bi ñu bind jëf benn list na ñii la topp et cetera man je ne suis pas d'accord je ne suis pas trop d'accord par rapport à ça parce que la présomption d'innocence elle est importante. Mhm. donc tey jii nii euh, je veux dire bu fekkee ne yow da nga jël. ci presse bi génnee ay nit ne ñi la ñuy topp alors que ne tey amul lenn loo xamante ne ni tey procureur bi le procureur financier taxawul def conférence de presse. Mm-hmm. amuñu suffisamment d'information par rapport à ça je pense qu'il faut savoir raison garder. Mhm. parce que tey jii nii waru ñoo commettre les mêmes erreurs que régime bi nga xamante ne ñoom ñoo fi jógee. parce que crainte boobu la sénégalais yu bëri di am parce que dañuy ne reddition des comptes d'accord mais euh, auparavant dañ doon cibler benn ñaar ñetti nit lañ fi jot a topp le reste ñu bàyyi ko noonu te je crois que les sénégalais sont exigeants par rapport ak li nga xamante ni moom moo war a leer. waaw xam xam nga reddition des comptes bi wax naa ko je pense bi nii laa ko woon wax naa ne autant. Euh, sénégalais yi xaar nañu ci nguur gi dund gu wàññeeku autant sénégalais yi xaar nañu ci nit nguur nguur gu bees gi sécurité bi mm-hmm. en réalité ñu sàmm ko autant xaar nañu ci nguur gi immigration clandestine ñu def ci seen kéemtalaay kàttan mm-hmm. autant également reddition des comptes dafa bokk ci demande sociale yi nga xamante ne nii moo taxoon ku mel ni man ku mel ni keneen mm-hmm. voter régime bi c'est parce que dañu constaté woon ne am na ay rapport yoo xamante ne épinglé nañu ci benn moment ay ñoo xamante ne dañ leen dénkoon lu askan bi moom mhm. président bi fi nekkoon ne am na rapport yoo xamante ne transmettre ko procureur moom moo ci teg concom et que tey jii nii ñu gis ñoo xamante ne également xam nañ leen benn instance seen dund mhm. dara yoruñu ko woon benn du tic au tac ñu mujj nekk ay ay milliardaire mm-hmm. ci anam boo xamante ne lënt na xelu képp ku sérieux mm-hmm. alors loolu moo taxoon ñu jàppoon ne reddition de comptes bi nga xamante ne dañu ne dañ ko war def mu nekk loo xamante ne farata gënu koo nekk farata d'autant plus que tey xoolal Sénégal bokk na ci réew yi gën a ndóol mm-hmm. tey jii nii wóor na la ne am na sénégalais yoo xamante ne ñaari repas la ñu lekk par tey wóor na la ne boo génnee parce que Sénégal du Dakar du Thiès boo génnee Dakar génn Thiès di nga gis village yoo xamante ne mais poste de santé sax amuñu ko dinga gis village yoo xamante ne ay école yi fa nekk ay abri provisoire la. Mm-hmm. tout dernièrement le ministre Guirassy gis naa mu doon def benn tournée Kolda gis nga abri provisoire mm-hmm. yi mu doon visiter. Mm-hmm. donc alal jooju nga xamante ne dañ koy sàcc en réalité alal jooju foofu noonu la war a dugg alal jooju ci askan bi la war a demaat. donc pour ñi nga xamante ne ñoo doon gérer ak ñi nekk ñëpp dañu war a bàyyi xel ne. reddition des comptes bi dafa war a dem jusqu'au bout mhm. mais bu mu am favoritisme bu mu am parti mhm. na ñu bàyyi sereinement les magistrats nañu bàyyi sereinement la justice mu dem jusqu'au bout de procédures mhm. et que mu bañ a am benn benn benn acte boo xamante ne dafay gêner les autorités judiciaires et xam nañ ne jàng nañu am nañu compétence am nañu xam-xam koo xamante ne war nañ la topp danañ la topp mhm. ku ñu war a daan dinañ la daan ku war a set ñu setal la je crois que ne c'est très normal et c'est ce qui est souhaité par le